ñu nuyu ko maître Madické noo ñu noo noo noo def ñang mhm. mhm, mu yàgg fi te ànd ak wéex borom nuyu Sénégalais yu yëpp kenn ku ci nekk si turam ak santam mhm. di rafet lu taay bi nga xamante ni bi teew na naka si plateau bi mu nekk loo xamante ni la am solo da nga may faral di gëj a invité. waaw loolu nag wax dëgg yàlla eh, loolu waxul. war nañ laa jël sax ci consultant consultant war nga ma jël bu ko defee leeg mhm. rek ma yëngu voilà parce que damay toog kër ga rek léeg-léeg ajaaxu jëne ma gëj ngaa feeñ tele <laughs> dëgg la xale yi sax noo maa dimbali leeg-leeg tiktok ma ndeysaan suñu fët la gëj nañ ma tiktok mais nag temps yi ñu ngi lay tiktok ci tag na defatuma buzz defoon nga buzz te loolu wax dëgg fa yàlla bu leen fàtte ni Mm-hmm. yàgg naa kaa toj. dëgg la ñëpp xam na ni maître ma di ko ku yàgg a toj. Mm-hmm. mais nag li ma ah. jaaxal mooy da nga ni doo ci doo ci bokkati ndax Serigne Mountakha mooy la nan politique ku mu tere politique dangaa bàyyi politique mhm. parce que mënuma tere politique ba noppi ma wëlbatiku parce que man taal bi Serigne Touba laa dëgg la mhm. voilà dëgg ah la kay ah, dangaa loolu bu bi Serigne Touba laa mhm. bugguma ko dul Serigne Touba déedéet xam nañ ko sant yàlla sant Serigne Touba sant Serigne Mountakha bu ne moon ma dikkee mbëkkal micro bi ma micro bi dafa oyof mun na woon mëqal miir bi mëqal miir bi nga mëq miir bi ah koy mëq war ba ngay wër naan damay toj rajax sëñ Muntaxa digalu la ko te yaa ngi woon doon wër di toj dëgg la moom dëgg yàlla te loolu boobu sëñ mu dëkk kii nii Touba fam si ah, daal la dëkk sàkkal ko bon ak Baye <laughs> ah, dëgg la dëgg la dëgg la ñang baalo. ah bon mm, en tant que dañ lay jël kii am kum ko eh, jaay. Eh, non non mën naa dem ci makki ni ko am na ay su liggéeyal Serigne rek ka tax a jóg. dëgg la amul lu tax a jóg daayira yi la. waaw Bamba bong la waaw. macha allah bàyyi naa yooyu ndeysaan wallaay. xoolal ñu affaire géey réew mi neexatul. waaw. xam naa xam naa ba nga ne li nga daan waxaale bamba ji bong la bamba ji bong la bang la toogal si kaw ban bi tàllal say tànk nu fay la nga nippi ayasir ndeysaan ah, ndigal caabi la ubbee <laughs> du ubbi bu ah, manqué du ubbi boo ko jaawale yàq kanaar <laughs> ndigal urus la ci biiru leget boo ko tegee ci gettu béy ñu teg ko am kàddu waaye boo ko joxee tëgg bu ko xàmmee bu sa noppee ak sa yàqur boobu namoon nan ko vraiment oh, vraiment namoon nan boobu laaj ma léegi dañ lay laaj waaw xoolal te gis nga defal nànk waaw léegi léegi fii da fii ordre fi am léegi euh, euh, euh, xam nga kii ku mën a tappale la waaw maître ma dikkee déedéet <laughs> ayca maître ma dikkee waaw nan nga gisee Ousmane Sonko bi nga xam ne rek dafa def grève de la faim ba ñu ngi naat table sax naan dafa nekk dans le coma nii mbirum Ousmane Sonko nag soxna si. déedéet waxal rek amul problème. fi mu ne maa rek. ah parce que fi lii ñuy def nii dee ko wuy ma mais dama lay dimbali. Mm. pour nga xam ne mën nga tee wax bari ndaat saay. Mm. lii ñuy wax nii. Mm. génnu ci sunu fii ñu nekk nii. mbiru Sonko. waaw mbiru déedéet lii ñuy waxtaan nii. génnu fenn siiwul dafa dara ñunu neen la. fi mu ne émission bi dafa jël temps ba dafa jeex tàkk dañ lay jël rek pour l'instant nii pour nga waxtaan ak. waxtaanu kër la waaw waxtaanu kër la. ci mbiru Sonko ci mbiru Ousmane Sonko. ah soxna du ma wax mu génn. du du génn du génn parce que ñun suñu mm. suñu kër gii. ñu nekk nii. Mm. wax dëgg yàlla dañ ko encadré ba dara loo xam ne bëgguñu mu génn du génn. donc lu la neex waxal. si Sonko. lu la neex waxal si Sonko. a wax. bu ma ko waxal ba ni naat saay waxal ba ni naat saay waaw waxal ba ni naat saay waaye booy yi duñ la wax dara. day ah, ak jàmm. ñunu leen la ñunu leen la nga comprendre xam nga il faut nga mën a communiquer xale yi. waaw ñunu leen la wax xale yi boo nekk tàmmul seen langage mun nañ la pëtëxal. ñunu neen la. Ah. ñunu neen la loo oh, bu bàyyi ñunu neen la. vraiment xoolal ñi techniciens yi toog jàpp nañ seen njàmbur. laaj laaj ma si kii. kan di ah, Ousmane Sonko laa lay. laaj ma laaj ma si Idrissa génnul dal génnul Ousmane Sonko génnul génnul Ousmane Sonko mën nga ci ma Idi ma dal si kawam. Idi di nga dem ci Ousmane Sonko. <laughs> déedéet xam nga loo xam ne ñun neen la Omar. mun naa wax jox ma Idi ma daal sérieusement xoolal waxal ci eh, yow nekk ko en jox ma Idi rek ma daal ci kawam di nga wax wóor affaire day fuité al ma du fuité xanaa da nga koy génne ma Idi jox ma Idi jëla Idi bariwul li mbokk ci réseaux sociaux kay ak a bari mbokk nag man mii boo laa te mën nga ko wax lu ma naqari jox ma Idi rek wax ci lu la neex xamul boppam xamul boppam parce que Idrissa Seck dafa taxaw wax Ousmane Sonko la ñu wax Ousmane Sonko di grève de la faim Ousmane Sonko bi dañ ci wax nag maître Madické dañ ci wax dafa soxla ay parrainage non non duñ ko wax non du tax ba bëggul wax ko tëjee prison Ousmane Sonko moom Idi Ousmane Sonko alma Idi Ousmane Sonko alma Karim jëlal Karim tuuti. jëlal ci Karim tuuti. Karim day jéem a nekk di naqasaale di am loo xamante ni bi mu ngi koy ngand ngandalu di jéem a wax ni day ñëw du dikk. Ah, naa ka soob la. Mm. loolu yépp ay wax la yoo xam ne. protocole ban. Euh, bàyyi ma rek si Karim. demal rek ci mu wax ba doyal bàyyi ko mu wax ba doyal waxal. protocole bi man xam naa li si nekk lépp. Eh. li si nekk lépp mooy damay dem après dinaa ñëwaat waaye di nga ñëwaat booy ñëwaat dana fekk ma jeexal loolu moo nekkoon si protocole bi. protocole bi nii muy demee nii la nii la nii muy demee nii nii la gis nga idée Karim. Mhm. ak xali abal ma xalifa. jëlal xalifa jëlal xalifa jëlal wax ci lu la neex dama. xoolal xalifa li mu def ku sell ki lan la def. xoolal fi mu jaar ak ku sell. kan mooy ku sell ki macha allah loolu xale yi bañuñu ko. ah boo demee nga boo paree nga dem ci Barthé après al naa la Barthé lemi xool abal ma Barthé jëlal nii laa tibboo waaw ko jëlal Barthé lemi boo ko defee am jàmm mm-hmm. xale yi ñoom danu taxaw lak yor seeni jëlal jëlal Barthé Barthélemy Diaz. bu du toon a Sonko barke Serigne Saliou du jël li nga xam ne mu la maire Dakar mm. loolu leer na. dëgg la ko ko fal. dëgg la Khalifa jëloon na Soham Wardini moom la Khalifa tànnoon. dëgg la loolu am na moom Sonko moo ne ko déedéet. Mm-hmm. Barthélemy moo nekk candidat bi te keneen du ko nekk. Mm-hmm, mm-hmm. te loolu bi ma amee xalifa dafa bañoon. déedéet kay ah dafa lànkoon. ku ma lay abalaat daal ne ko Bart mënul yor mairie bi. et pourtant gis fi mu mujjee. xoolal ni nga xamante ne bi noonu la def ko sell ki yaakaar ngeen lool mbaa Macky déggul li may wax yooyu loolu tamit wóoru parce que Sonko Macky mën na léegi àll naa la Macky Macky di ko fàttali ne ko moom léegi wuy ma àll naa la Macky jëlal ci Macky Macky Macky kenn lu baax rek la nuy wax si moom léegi Ousmane Sonko nag waxal nag léegi nu ne neen la léegi wuy ma mën na ko accélérer oh. jeex na jeex na waaw jërëjëf parce que laaj Ah, yow ah? jërëjëf mi du mun a ñëw mimi moom garaawul. yaa ko batax bataxee. Ah, bàyyil mi mi ngay puusa ko puusa. ngi leen di eh, jaajëfal.